jërëjëf mbokk mi ala kulli xaalin eh, amaa lu aju ci nag eh, gént mel na dangaa nekk ci jumaa di julli aljuma ngeen mel ni imaam bi miy julli dafa am benn xale bu ñëw pour di wax ak moom waa loolu de saa su amee bu dente ne imaam bi wax na moom bu julli gi yàqu loolu yëgal ni wàllu seytaane moo koy def Euh, bi ci tamit dana wane ni aji gént ji dina am yaakaar ci mbir mu rëy euh, dem ba war caa àgg mu am gàllankoor wala jafe-jafe fekkente ne nag imaam bi xale bi wax naa moom te yàqu dara ci biir julli gi mu kon ba julli gi àgg loolu saa su amee baax na loolu ñaan gu nangu la yokkute la wala mébét yooyu mébét yàlla di ko sottal saa soo ba julli ba julli gi àgg te yàquwut yëgal ni aajo ja faju la saa boo julli nag yëg ne am na lu lay yàqal ci julli ki benn seytaane lay doon wa ilaa di dugg ci mbir moo xam ne dana am ay gàllankoor wala ay jafe-jafe moo tax ala kulli xaal yi nekkul lu gën incha allah rabbi kon numéro bi mooy 78 443 75 27 ñi nga xam dañu aajool aju ci wàllu firi gént yi wala seet wala listixaar incha allah rabbi